di ñaan nga jottali ñu ziyaara boobu ak nuyoo yooyu ci njabootu Cheikhul Khadim bi yëpp di fi teew di feddalewaat sunu taalibe ci sa wet di waxaat sama mbégte ak cant gu may sant suñu boroom bi mu ma mayee ma ñëwaat fekk la fii ci Touba. ci waajal bés bu màgg bi màggal sëñ Tuuba taxawal ko ngir sant boromam ak ngir ñu santale ko boromam ma am nag mbégte si di fi fekk moo tax ñu ñaan yàlla yal na nga fi yàgg lool te ànd ak wér ñu yàgg di la fi fekk ah di la jàppale it ci sumb bi nga xam ne yaa ngi ci dox dox yu am solo lu bare la maa ngi seede askan wi yëpp suñu sëñ taxa bi nu yàlla boole ba tey lu jiitu may jot ci réew mi ci njaareem la woon ma ñëw fekk ko ci ab fulk mu won ma ab ñeewanteel won ma ay ñaan ñaanal ma ba màggal gi jiitu muy toog ci xilaafa gi ma ñëw fii ñu juleendoo ci kër sëñ Touba ci biir néeg bi nga ne ma bul xool nit ñi li ñuy def yow sëriñ bi ngay liggéeyal te ku liggéeyal sëriñ bi dana la fay kon man ci loolu rek laa nekk li def Touba xaaruma ci cant xaaruma ci ngërëm ndax la mu wax ci loolu laa nekk te may seede yi ne mosuma dënk benn soxla bu jëm ci moom mi wala ci njabootam benn lépp ci dëkk bi la ak ci askan wi kilifa gu mel noonu nag buñ ko amee dañuy ñaan yàlla mu bàyyi ko fi mu yàgg lool ndax dundam njëriñ la ci réew mi njëriñ la ci lislaam bi njëriñ la ci yoon bi man de awma sa pay ndax xam naa li nga ëmbal ci yéene xam naa ko boo waxul sax man xam naa fi nga ma féete te cofeel gi nga am ci man mënuma la ko fay kon ñu en tant que jullit ak taalibe li ñu man rek mooy ñaan yàlla mu la fi nga yàgg fi lool ànd ak wér te xam ni lépp lu ma war a def ci ay bi ma suñu boroom jox ci tuubaa danaa continuer di ko def ndax wareef laa ko def ci sama bopp liggéeyal sëriñ bi laa ko def moo tax euh, daray àdduna du tere du changer loolu rawatina sa jëmm ji te nga wane ko mu mot sëkk ah ren nag ñëw nañu si màggal goo xam ne ci digg nawet la am muy nawet bu yàlla def ndox mu bari lool mu ñëw ay jafe-jafe ay ngaañ yu bare waaye ñu sant yàlla ndox bu ñu dem nawet dañuy ñaan yàlla may ñu ndox xëy na dañuy ñaan lor bi bañ a bare waaye dañu toll si àdduna fu changement climatique yi taxe gis ngeen li xew ci réew yëpp Pakistan ci dëkk yu mag yi fu ne ndox maa ngi waame di yàq donc ñun itam am nañu si ay jafe-jafe rawatina dëkk bu mag bu mel ni Touba ak Ndakaaru ndax ñaari dëkk yooyu ñoo gën a am jafe-jafe ci wàllu ndox mi waaw ah, ba tax na bi ma waxee problème mu forage ndox mi amoon di bal di génn si kër yi ñu defaraat beneen programme ci urgence di def ay forage di ko pomper waaye yàlla def nawet bi tam ñëw fekk si loolu waaye diggante daaw ren def nañ programme bu am solo bu toll si ñaar fukki milliards ak ñett pour yaatalaat euh, mband bi nga xam ne muy bassin bu Kër ñaŋ bi nga xam ne juróom benn station bu ñu pompee ndox foofu lañ koy yóbbu donc bu ndox mi bëree nag ba ëpp loolu moo doon indi muy déborder te comme Touba amul géej gu ñuy yóbbu ndox mi faaw ñu wut ay bërëb yu ñuy yóbbu ndox mi moo waraloon ñu dem ba ci Daaru Rahman am fu benn bassin bu mag boo xam ne ren bi ndox mi baree déborde na ba dugg ci tool yi def beneen bassin bu jëm Pofdy loolu it liggéey nañ ko waaye xam nañ ne doyul ndax bu ndox bëree ak dëkk bi ni mu toll laaj na ñu am beneen taxawaay moo waral ñu def bassin bu bees boo xam ne mu ngi ci kër kàbb juróom-benn fukki hectare loolu mosul am ci Sénégal bassin boo xam ne juróom-benn fukki ectare la pour di taataan ndox mi ndox mi jóge Touba jaar Kër Ñang jaar Daaru Rahman jaar Pofdi waaye tam ñu ubbi beneen bu bees boo xam ne moo nekk Kër Kàbb kon lii ay liggéey la liggéey nag dafa àndul ak wax waaw nit tam buy liggéey dañ ko war a encourager ko war a encourager waaw góor ndax mu gën a farlu ci liggéey gën a dolli waaye nag senegal tam ni mu bindoo ala kulli leen dañu nangu rek def yàlla wàccee waaye daal nga xam ne liggéey bi nga xam ne maa ngi koy def fii si Touba ak ci Sénégal du ma ci wàññi lenn loo xam ne euh, doomu aadama dina tax ndax lii sama ngëneel mooy ëllëg parce que boo fi yàlla di jëlee ñoo xam ne fa ma indi réew mi moo sut foofu fa ma ko jëlee loolu rek laa ci wut ci ngërëm li des nag keneen ku mën a ñëw mën nga mottali ak saa yu ko yàlla tudde kon sëñ bi maa ngi lay santaat bu baax forage itam yokkaat nañ ci ñeent yu bees benn bi Daaru Xudóos la ak euh, ngaabu ak euh, bobo boboreel boroleel boroleel am na beneen tam bu ak Matlabul Fawzayni boobu moom tàmbali na donc loolu yëpp dañ koy def rek ngir fi dëkk bi toll ak population bi dafa laaj dëgg-dëgg taxaw taxawu boobu tam mënul mënul arrêté parce que boo arrêté rek moo indi gàllankoor donc dañuy far di continuer toujours ci liggéey bi ngir euh, population yi ngir dëkk bu toll nii dëkk bu tedd dëkk Sëñ Tuuba euh, ñu mën ko taxawu taxawaay taxaw bi war loolu ci laa nekk ci la sant nag di la gërëm di la wax it nga continuer di ñaanal Sénégal yàlla wàcce fi xéewal wàcce fi jàmm euh, Sénégal jëm kanam loolu ci gàttal moo doon kàddu yi ma bëggoon yëkkati si turu réew mi yëpp nag ndax moo ñëwee tey dama indi ziara Sénégal yëpp ci tànk boobu laa fi ñëwee euh, di la ndokkali si bés bu màgg bi ñuy waajal mu màggal di la sant di la gërëm cant ak ngërëm goo xam ne amul àpp di la di ñaan suñu borom mu bàyyi la fi nga yàgg fi loolu ànd ak wér maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sa porte parole suñu Bassirou di sant say rakk yi fi nekk ñoom ñëpp ak njabootu xaadimul xadim allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jërëjëf président